xam sa démb xam sa tey xam sa tey xam production de Goethe Institut en collaboration avec les Archives nationales du Sénégal et Kër Leyti la maison de l'oralité et du patrimoine. àdduna yàgg na waaye ëllëg ci démb lay jóge déglu leen ma may ma nopp ma nettali leen jaar-jaaru Sénégal bu rafet bii sunu réew mii may leen ma nopp ma ànd ak ñu tukki ci jëf ju mag ju réew mi may leen ma nopp ñu dundalaat sunu xel ak sunu fàttaliku ñun doom yi fàttaliku ay doomam di góor di jigéen may leen ma nopp ñu wax ci ñi nga xam ne seen jëf rafet na ba nettali bi rafet may leen ma nopp ndax sunu taarix dafa rafet te jar a xam may leen ma nopp seen noppi xol nag laa soxla ngir ma ànd ak yéen ba ci suñ biir xolu démb may leen ma nopp ngir ñu mën a dund sunu tey may leen ma nopp ngir ñu mën a waajal sunu ëllëg ñun ñooy taarix xam sa démb xam sa tey Sidiye Diop mi ñuy waxtaanee bokk ci ndaanaan yi nga xam ne dañoo xeexal réew mi nanu xam ne Sidiya li tax turam siiw te ñu téye ko mooy ab juddoom mooy jaar-jaaram mooy it jëfam Sidiya Diop kuy ndeyam Linguère na te yàlla ana kuy baayam Sakura Barka Diop mi nu wooyee Maroso Tase góor gi ñeme woon xare jàmbaari xare ja Sidiya nag mi ngi juddu ci 1848 nekk njabootam nag ci biir kër gi ba 1855 jamono jooja nag. xeex bu métti moo amoon ci doomi Sénégal yi bañ séq ko ak tubaab bi bëgg a noot réew mi ca noona tubaab bi xam ne taswaalu rek mooy jàmm feder Faidherbe ginnaaw bi mu yoree kanu ñëw dóor ko nit ñi dal ci seen kaw ca la moom nag Kajoor waaye nag Sidiya Léon mi ngeen di dégg te mu tudd Sidiya dëgg moom njabootam dañ ne ñoom gàcce duñ ko fekkee ca lañ demee Kajoor toog fa ginnaaw bi nu dellusee waalo nguurug tubaab bi jël ndeer def ko canton jeg bi nag moom na nekk chef de cercle Sidiye mi nga xam ne nag moo war a falu moo war a toog ci jal bi booba gone la mënagu ko nekk gis nga keroog bi tubaab bi jëlee ndeer def ko canton fédère bi li mu bëggoon rek mooy fexe ba waalo gépp mu noot ko jàmm am fa ba kenn dootu bañ waaye am na ca goxu wàllu gox yoo xam ne mosuñoo nangu tubaab bi yilif leen ñuy bañ rek Faidherbe bi ci xareñam mu jël Sidiya bàyyi la ko boppam daal di jël aw turam dugal ko ci biir turam tuddee ko Sidiya Léon Diop daal di koy jël yóbbu ko ndar ca daara ja nga xam ne moom lañ tuddee woon école des otages nga xam ne njiit yëpp dañ fa dajale woon seeni doom 1855 ngir nag tëgg ay doomu Afrique yoo xam ne lu tubaab bi wax ñu ne waaw Sidiya at yu bari gisul njabootam xamatul ci aadaam ak cosaanam dara waaye nag jàngkat bu mag la woon moo tax taxawalut fenn ci njàng ma. Sidiya Léon moomu mi ngi ñibbi si Waalo 1861 waaye keroog ba mu ñibbisee nit ñi gëmewul ñibbisi gi ba tax tëje gi daldi gis ne ñoom xeexaat jot na loolu moo tax. Faidherbe bi mu yëgee ne nit ñi ñëw ak Sidiya dana leen yëngal mu jël ko daal di koy yónni yóbbu ko Algérie ca collège impérial ba ngir mu jàng fa ñaari at yoo xam ne doomi ndata yàlla ja sori na réewam nekk ci biir tubaab yi fala jàngee ngànnaay ak militaire nun koy defee 1863 nag ca la ñibbisi waalo ñu daal di koy teg nag mu doon chef de cercle ndeer waaye yombut ndax Sidiya ñu bëri ñu yoroon nekkoon chef de village yor dëkk yi ak ay chef de cercle nanguwul woon li ñuy def di noot askan wi jël impôts yi di ko lekk ñooñe nag di doomu buur ne moom bokk ak moom deret ne na nu fexe ba jaxase ko ak tubaab bi waaye lu nu yàq rek aw turam ak jikkoom defar ko ñi nga xam ne ñoo bokkoon ci kàngam yi daan fal muy seb ak bawar dem gis gouverneur François Vallière ne ko danoo bëgg Sidiya du yam rek ci jiite lenn ci wàllo waaye na jiite wàllo gépp Sidiya nag ca lañ ko def chef supérieur di wàllo 1871 waaye gis ngeen de mu yilif chef de canton yëpp yéeg boobu mu yéeg nag ca jalba ba mel ne ko faluwaat buur mag ñi gis ne lii de wecc na xeex biñ leen xeex ba jëlee fi barak si dee nag nguuram yombut woon ndax tubaab bi lépp loo xam ne mënoon na koo def te mu jëm ci am koom ak i impôt te Sidiya tegoon ko am na ci chef de canton yoo xam ne neexu leen woon ndax lépp ci yoon la daan jaar ñu bëri nag yaakaar na daf leen di xañ daf leen di xañ alal ba tax noonam yu njëkk ya daal di doonaat ay noon Sidiya dàq na sax ñenn ci ñoom neleen leen dootu leen ay chef de canton ndax da ngeen a sàcc xaalis da ngeen a dëpp kees kii de mooy Sidiya Léon ca la coow jubaat ci digganteem ak i mbokkam sàcc yi nag ak defkatu lu bon yi ñoom daal di profité ca loola rek dal ci kaw dëkk yi. bi nga xamee ne nag Sidiya jóg na ngir tegaat réew mi ci yoon tubaab bi ne du ko jàppale ndax tubaab bi li ñu ko waxoon ne ko Sidiya mii dafa bëgg a yëkkati ay jàmbaar ngir dal ci kaw France. moom gëm na ko noonu sax la digganteem ak tubaab yi yàqoo Sidiye nag ne moom benn gouverneur rawatina gouverneur Valière dootu ko wax mu def dootu ko woo mu wiji ko li nga xam ne moom la tegaat ngir wan tubaab bi ne ko faalewu ko mooy dafa dem canale lettu fa ni baraag yi daan lettoo ay maamam daal di nag dem na maamam yi daan def ay aadaak cosaan mu def ko fan doon diwoo mu diwoo fa fan doon sangoo mu sangoo fa moom mi nga xam ne gouverneur Faidherbe moo ko tuddee woon Sidiya Léon summi yërey tubaab yéen ko sololoon sànni daal di nag doonaat doomi waalo jim doonoon ay keroog ba mu agsee Mbilor mu ne mag ña fa ne làkk tubaab dootu leen ko dégg mu jib sama gémmiñ donte miinoon naa ko doon ko fooye ndax ni ma ko jànge mu ne leen nag bis na tey jàpp leen ne fasu tubaab bi lum gas danaa ko suul ndax dootuma ko may jàmm Sidiya daal di wër waalo ni jàmbaar yi jóg leen am ñoo xam ne bëgg nañ am ñoo xam ne bañ nañ ndax feder ba daloon na ci seen kaw yàq seeni réew noon nan ci xeex bi ñoom ñuy wut jàmm rek waaye foo dem fekk fa jàmbaar ci waalo moom waalo waalo yoo xam ne ñoom bañuñu jóg ànd ak fit ak bëgg waalo ak bëgg seen buur takku taxaw ci ginnaawam ne ko jugal ñu xeex yi waaye gis ngeen gouverneur Valière moom dafa dem ci ñi nga xam ne dañoo bañ Sidiya mu wéeru ci ñoom ànd ak ñoom xeex ba nag métti ndax ay ati ati at lañ ko xeex xeex bu métti fépp ci waalo xeex nañ fa xeex bu gudd boobu nag métti woon lool ci jàmbaari Sidiya yi ak askan wi ndax jàmm amut fenn dal amut fenn 1875 nag Sidiya Diop mi nga xam ne eli njëmbat muy doomi yëkk ak di émiru Trasa ànd ak moom ak amadu Cheikhou mu ne naa ubbiku ci Lat Joor dameelu Kayoor ak Alburi Njaay burba ba Jolof ngir ñu ànd jàppale ma ñu xeex tubaab bi waaye booba Alburi ñu ngi koy soog a pal ca yang-yang Lat Joor xaatim tubaab bi ak déggoo loolu moo tax ànduñu ak Sidiya bi nga xamee ne Sidiya xam na ne lu ànd bi gën a yaa tubaab bi gën a sonn mu ne duma ma bàyyi du ma tàyyi loolu moo tax sax ci xeex bu mu doon xeex ak tubaab bi lañ ko jàpp ca Kayoor. ñu ko àtte nag ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru janvier 1876 daan ko nag ne ko nan ko génnee Gabon yóbbu ko foofa buñ ko génnee yóbbu ko ba biir Gabon. àll ba dana dëll dëll goo xam ne du fa mën a dund. ay weer rek la fa def am jafe-jafe wér gu yaram ñu indiwaat ko. biñ koy indiwaatee nag gouverneur Louis Brière de Lille. moom ci boppam ne Sidiya tànkam bu mu ko tekki Sénégal bato ba dëpp delluwaat Gabon ak moom waaye doomi gor kenn du ko tëj doomi gor kenn du ko yeew Sidiya Léon daa di bañ tëj gin ko tëj daa di jël balu fetal teg ko cib dënnam dóor mi ngi daanu keroog ñu tàgge ko ñaar fukk fan ak juróom ñett ci juin ci 1878 kooku mooy Sidiya Diop noonu la fekk ndeyam ndate yàlla mbóoj ca jàmbaari waalo ya kuy wër jàmbaar ju bëggoon Sénégal doon ko xeexal yemal ci Sidiya kuy wër góor dëgg yemal ci Sidiya Sidiya ngi noonu tubaab bi def na lu ne pexe yu ne ngir rekk Sidi doon tubaab Sidiya ne moom du doon tubaab ay maamam liñ ko jox ndonoom ca lay téye noonu mooy Sidiya jaar-jaaram noonu mooy ak dundam noonu mooy ak deyam kuy wër jàmbaar demal waalo boo demee waalo la Sidiye Diop xam sa démb xam sa tey xam sa sa tey di waxtaan wu leen Goethe Institut may ànd ci ak Archives nationales du Sénégal ak it Kër Leyti maison de l'oralité et du patrimoine direction artistique ak présentation massan Gueye assistant Abou Soumaré régie technique La Factory bu Ousmane Faye ci xarala gi Roland Sagna coordonnatrice Bouye Institut